ay taalibe murid yu pastefu lool ñoom ñëpp nag ñu ngi jokk ci kuréel gi nuy wax makarimal axla pastef sëriñ lamin géey mi jiite fédération bi nga xam ne amal ziar général ci kanamu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makarimal axla boobaak léegi nu ñu koy defee noonu lañu ko wéyalee muy xéewal yi nga xam ne ñu ngi koy togg si ci kër sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla noonu itam lañu ko amalee ginnaaw liggéey gu am solo googu ba mu noppee sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa daal di dalal kuréel gi ñuy wax makaarimal axlaa pastef gannaaw nag bi ñu ko biralee liggéey bi ak tolluwaay bi naka noonu sëriñ Abdou Karim Mbacke jël kàddu gi soññu leen ci pastef bi nga xam ne am nañu ko ba liggéey boobee mën a antu gën leen a ñaax ñaanal itam. ñaan ñaan sama mbir yëpp ak dal sëñ bi nee na li muy wut dañ ko gisee yëpp nee na li muy wut ak dal la koy wutee xanaa yéen bu ngeen demoon seen këyit war leen a def fii waxumaa nag ngeen ñëw biñ sama kër di ma def fii. nee na dafa mel ni tool yi ngeen di wut xamu ngeen wuti fan la. dee leen waa Ndar soxna Adja mii moo leen jiite waa waa waa Tëngéej soxna Faatu moo leen jiite euh, waa Tiwaawan waa Tiwaawan bi yaa lu gënal ci ñun. sunu ndey yaa gën ci ñun sunu baay ndax yaay ci bi xéwal yi bi xéwal yi ñëwee dañ ni duñu duñu xéwlu mukk te gisuñu ndax a lu maanaam tànk yi ni ñëwee ak yi ñuy delloo nag mbàkke yow léeg wala waxoon sànq dama di sëriñ bi loolu ñuy wax umu jukkoom moom la yore bu ngeen ko xoolee rek seen aajo lépp faj parce que Cheikh Modou Fall ndax fii kon bu ngeen ñëwee fii fekk ko ci jëmmam jii ko ñaanal moom fa mu nekk suñu borom defal ko xéwlu yaatu ci barke Serigne Fatou. parce yi xam nga sëñ bi sax ci seen bi tëddee sëñ ko ci koy kàddu doo ko góob kon am solo rek loo sori sori ak loo jege jege da sa pas ba sax rek ci. sëriñ bi dafa am lu ko tax a jóg. mu woote makaarimul axlaax lii may wax nag daayira yi toog nii di yëngu ci makaarimul axlaax ñii jaaree ko ci whatsapp mu mel ni usine benn tali kër Mbay Fall waa Pastef waa Bargny ak ñeneen ak ñeneen fii kullu yawmin noonu lay mel te sëriñ bi kenn ko bett kenn ku ci ne ci yéen bi ngay laata ñëw sëriñ bi laaj na fan ngay jógee ñaata ngeen di doon ba sóoraale ay xew te ëtt bi wax na ne ku fi teg sa tànk foo fi teg sa tànk Serigne Fallou Mbacké teg na fi tànk ah loolu dañuy des bu leen dañuy des nee na lii faj aajo yëpp bu dee fukk la moom benn rek la ci juróom-ñeent yëpp suufu si nit ñi ngeen di dox ak ngelaw nit ñi ngeen di noyyu moo koy fekk léegi nag loolee xam nañu xër ki bu baax macha allah mooy sëbër. dernière sox bi ñu soxla moo nekk saa moo ko xam nag waaye sëñ bi daa mu bëgg. ginnaaw ñun bu ñu bëggee man dafa doon bañ ñun ñu def ko rek benn kuy ñëw rek wax sa aajo mu ñaanal ko gëm def. sëriñ bi dafa am lu mu woote te li mu woote si jamono ñun ñëpp dañoo war a yeewu xel maase dugg ci internet bi dugg ci YouTube bi di gëstu sëñ bu kër yi sëñ kii la ñu yàlla boole ñun mooy suñu chance makaarimul axlaaq lay dox mooy ñu rafetal jikko yi ci ko ci xool rafetal ko ci kii loolu moo waral sànq bi nit ñi ñëwee ànd ñoo dal mu xaw ko yéem waaye nag incha allah kenn ku ne di nga fi jëlee tey daal mbàkke lii lu ñu mënta ñàkk wax rek ngir ñu ñu àndal rek wan leen ne ñun jaww ji de ñoo ngi seen ñoo ñun ñun ni nga doxalee rek ak ni nga tracé rek lañ lay dox. waa kër Mbaye Fall Ibrahima Mbengue mii moo leen jëriñ jël Mame Mor boole leen ak Mame Mor waa usine yii ci man lañ nekk waa Pastef yii ci Lamine Gueye lañ bokk mu boole leen ak sëñ Cheikh ñuy jokkoo ci whatsapp yi ndax whatsapp yi fi mu ne nii Mbacke. yow moom doo jëfandikoo WhatsApp waaye WhatsApp bi yow yaa ci nekk yaa ci xew. internet bi yow rek la. waaye nag ñun ñi nga xamante ni dañoo jiitu ci sa am na luñ ciy xam ndax da nga ne woon bi dana daj at. daan na nag man baaxoo ma di dem ci télé yi ak ci rajo loolu nga xamante ni yéenay taalibe yi ku ci dëggal sellal. jóg dox ci rek ma def ci yow puissance wax nañu fii ñu ne xam nañ ne xaalis bii ñun Mbàkke ñu dañoo ñëw fekk nga fekk lañ nga am lépp lii nii fi koy dugal ak jaam yàlla yi mooy lii gën a gaaw ci gërëm li ñu sax mos nañu indi Baay Faal yi di ziar indi addiya nga ne da ngeen a xër rek boole ci xaalis waaye xanaa xamu leen ne makaarim axlaaq dox bi ngeen ci wax dox ak wax bi ngeen ci wax doy na àddiyee seen digganteeg seen Mbacke xise ba dama ko jëlee ci yow yaa ne woon ku mel ni Serigne Saliou Mbacke ca jamono ci àdduna fu dul si réew ba gis ne sëñ Mountakha mooy sëñ Saliou moo tax ma wax loolu kon ñu mel noonu su fekkente ni danoo bokk ak ñoom réew bi te idéologie yi nga xamante ni mooy defar àddina nekk ca kooku ñun li ñu war ñun ñëpp mooy lépp lu nekkoon suñu biir bopp ak lu ñu doon dàq suba ak ngoon jëpp ñu teg ko fële rek dem rey suñu bopp ci xam lan mooy idéologie ci Ahmad Bamba te buñ ko bëggee gàttal raccourci bi mooy makaari wax laa bi sëñ boole kenn ku ci nekk nga nee na nga defar sama xoolin xoolin dafa am waaye ñu jàkk nit ki sax ba du ba doo xef sëñ bi nee na nañu nañu yar xoolin yar waxin yar doxalin yi yar xal xal yi surtout nag bi mu gën a insister mooy mooy mooy la. waaw Ibrahima nee nag ay kàddoom mi ci sama biir kàddu ndax dafa waroon jël dañu bëgg kàttan dafa am nag loolu mos a baaxee yàgg nga maa baax waaye mbàkke boobu dama ñor lool danga ma ne woon yàlla bind na ay jëmm yoo xam ne li mu denc ci ñoom du feeñ ci seen xar kanam du feeñ ci seen waxin du feeñ ci seen doxin du feeñ ci seen topp nga ne ma nit ku mel noonu li ne ci moom boo ko bëggee génn nee caabi ji mooy makkaari bu lax waaye yow yaay kii kii ñaan yàlla rek mu faj aajo yëpp parce que dañu ñaan rek aajo yëpp faj rek ñu génn ndax dem xéwal yi na ñëpp kàddu yi sëriñ Lamp yëkkat na yéen ñëpp sëriñ bi nee na am solo mooy ñëw ngeen fii Ndindy dajale seeni ñàkk ak seeni coono ak xat-xatloo bi ak xiif bi ak mar Serigne Fall loolu nag bu ngeen ko defee dafa am yëg-yëg bu ngeen am ci ba mu jaral leen loolu Serigne itam. lool ba tax na man seenu ñëw nit ñi wax léegi rek sëñ Fallou moo ko moom moom lañ ko seqal moo tax man wax ko sëñ Fallou sëñ Fallou taxaw nii yaakaar loog yéen ñaari mbir buñ demee ba jàkkaarloo arbitre bi day taxaw ci seen diggante laaj leen ndax ñoom ñëpp jekk nañ jekk nañ ñu ne ko waaw mu daal di soufflé daal di dellu ginnaaw bàyyi leen ñoom ñaar ñu jàkkaarloo ki koy wax ki ko man moom ko yàlla def ko ci moom ngir baaxu sëriñ Touba ginnaaw rasulullah war ngeen a xam ne am ngeen sens bu kon nag yéen a sëñ Fallou Ngom li leen tax a jóg bàyyi leen ko moom rek sëñ Fallou nag lenn rek la nanguwul ñëw fi daal naa am mën naa bañ a am daal maanaam daal dinaa toll ci sa xel naa am wala mënut a am loolu mooy nattam Sëriñ Fallu nag moom ngeen nangu mooy xam naa ne li may teewloo te doon ko tawat bi yàgg ba dama gàcc ko Serigne Fall xam naa ne faj na ba ci am waxtu woo ko defee ci seen Fall rek mbir ma moo tax bi ngeen ñëwee fii sëñ Fallu ci sëñ Fallu jógee fii nee leen di yéen jox na ko cër boo bii fu mel ni fii ngeen ko teg da nga xam ne sa soxla boo ko jàmbatee yàlla mu fajal la loolu daal sëñ bi nee na mi di gërëm te di ñaan nee nag dëgg la bu baax nee na ñaanaloon na leen waaye mu ngi leen di kuréel ji ñuy wax makaarimal axlaaq Pastef mu nekk nag kuréel goo xam ne boobaak léegi ay jëfan ñu ngi koy lawal ci réewum senegal ba ci bitim réew xemmemteef gi nag bokk na ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ca biti réew gën a mën a jokkaloo waaye lépp rek ñu koy ànd ngir liggéeyal Serigne Touba jaare ko ci seen bunt di Serigne Abdou Karim Mbacke